waaw sëriñ Modou Mamoun Mbacké di doom ci sëriñ Modou ya tey jii dafa mel ne sax xalifa sëriñ Cheikh woon na la pour ñu ànd teeru président de la république mel na ne nag dana woon day ñëw ci kër sëriñ Modou Rokhaya dem ci sëriñ Jili xalifa bi waaye booba te yéen koy teeru gisu leen ko ana yéen kàddu ngay wax waaw sëriñ Fallou ginnaaw bu ma nuyoo mbokk yëpp ak sant mbooleem ñi fi teew doon jëfandigal man it ma bokk ci ñooñu man ku ne xam na ne man opposition bu wér ci laa nekk dama ne woon du dugg dëkk bi mobiliser woon mbooloo mu dul jeex fas yéene ko jëflante ak moom teg eh, sama maanaam stratégie boo xam ne ñi ma mobilisé woon du ñu taxaw ci kaw tali bi dañoo ne ci biir koñ yi bu dugg see rek ñu fas yéene jëflante ak moom ci côté yëpp buñ demee ba ay waxtu waxtu 15 heures Cheikh ma di di sama kilifa di di mag ci man di sama lépp ne ma damaa bëgg président di fi ñëw sama gan la damaa bëgg ñu bokk nga teertul ma ko toog fii bu ñëwee ma nuyoo la ko nga wax ko leen xari te bañ koo gàllankoor ma ne ko waaw ñu toog toog di ko di di ko teeru daal di salaam gépp daje fi ñëpp teew dëkk bépp ak taalibe yëpp suñu seex mobilisé leen togg ay xëylo ma ki berndeem yëpp waaye biñ ñu toog di ko xaar di ko xaar ba dañoo jékki-jékki ne mujjul ñëw teggi na noonu dem man nag loolu la ma gisee rek mooy suñu seex moom am na yéen a bëgg koy dimbali waaye boo moom lañ mënta dimbali euh, bu del si waatee nag ah man de yaakaar naa del si gi amut sens ginnaaw dugg na ba Daaru Salaam dem mooy mooy li wax rek mooy mooy dafa amul sens moom saa bu jëfee ji jëf saa bu mu des ndax si Cheikh mooy jëwriñ ni kër Cheikh Anta moom kër maam Cheikh Anta gépp mooy porte parole bi mooy jëwriñ ji bu duggee Daaru Salaam teggi ko day mel ne dama kon kon kon daanaka ñu jàpp na ñu Daaru Salaam rek lii nag man bettu ma man man bettu ma naa ko tamit nii rek la mu ay mbiram noonu la baaxoo gis nga teg na xeeru Ila Touba moom fu jógee dem Charlie Hebdo ñëw na di ko indi ñu fa na Daaru Salaam teggi si Anta ay mbiram nag nii nii rek la man amu yaakaar de